salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi seen chaîne académie Minane TV moo ñëwaat tey fii ci gaar bu ndaw indi leen seen émission fësal fësal nag tey mi ngi xew fii ci station gaar bu ndaw kuñ fii seet si centre de formation Lamp Fall Couture bu ñee centre de formation Lamp Fall Couture firi na lépp kiñ fii fekk kañ moo neex lool muy soxna di ndaw boo xamante ne dafa taxawal di prouver yor ay moroomu jigéenam di leen jàngal boobee métier ci kanam tuuti boo leen gisee image yi daw di ngeen gis lii nga xamante ni moom la ñuy yaatal ci biir ñu jàll séentu soxna mama bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fii si seen chaîne académie Minane ñu amalaatoon seen émission fësal di ko defee fii nag ci gaar bu ndaw seet si woon euh, benn jigéen bu brave boo xamante ni dafay prouver yor entreprise am di prouver di doxal ñu ne woon tey nañ ko seet si euh, mu ubbil ñu yaatal ñu soxna mama ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay Alima. na sant yàlla bu wér. alhamdulilah soxna mama ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw Alima maa lay fay di la remercier ci invitation bi parce que def nga lu rafet ndaw lu mel ni man. ak keneen ak keneen dañuy bëgg ku fësal seen liggéey kon li nga def daal dañ la jaajëfal rek tamit di la teeru ci sant formation la Lamfar Couture. merci beaucoup maman ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax euh, maman maman la tur bi. maman la moom la ñuy moom la ñëpp daal xam mais tur bi dëgg-dëgg. tur bi dëgg nan la Ndeye Fatou Ndoye la. Ndeye Fatou Ndoye kon tey lébu lañ seet si. waaw lébu Ndoye. lébu <laughs> Ndoye Malim Borom Ndoye macha allah faatu Fatou ginnaaw sa nuyoo boo ñu doon wax ci Ndeye Fatou tey lan nga ñu mën a wax. waa Ndeye faatu benn ndaw la mm, bu nekk Touba nekk ci mode moom nag lépp lay def de couture rek la nekk day def mode day def défilé da koy jàngale en même temps yow centre formation Lamp Fall couture. d'accord Ndeye Fatou buñ ko xamee ci mode lañ ko xamee en même temps dafa yor centre couture Ndeye Fatou ci loolu la jiitu wala. waa Ndeye faatu nag di ba mu nekkee xale ba léegi ci centre formation ci la jànge ndax ci couture waa ci la jànge ci loolu dong la mës a yëngu nag. comme Ndeye Fatou yëngoom yëpp couture la depuis mi Ndeye Fatou ba âge bi ñëpp ci couture la njëkkee. Ah, waaw ndax ñu ci sant yàlla bu wér <laughs> ñu ngi ciy tedd daal. macha allah yàlla na yokk Ndeye Fatou fan nga njëkk a commencé boobu métier. waa Ndeye Fatou mi ngi dëkkee Dakar euh, Parcelles Cambérène 2 maa ngi jàngee te Fadia yàlla def ñu tuxu si fii Touba. bi may jàng foofu pare woon naa sama formation ma ne pourquoi pas mënu ma ñëw fii continuer euh, ba yàlla def tamit ma demaat ci beneen centre bu ñuy woowee euh, Baye Karim sëñ Abdou Karim la centre bi tudd mi ngi nekkee moom tamit ndaamaatu fa laa génnee foofu tamit doon naa fa jàngale léegi nag ci laa beru ubbi centre formation Lamp Fall Couture. d'accord études yi moom nga njëkk a def. étude euh, muy français bi. waaw jàng naa ba def sem da leen naan classe gor yi waaw classe naalité yi <laughs> foofu laa yem mais nag de toute façon man couture dama ko yàgg bëgg bi ma nee damay bàyyi sama yaay moo ma doo bàyyi parce que dangaa war a jàng sama papa daal moo ma jàppale ma kóote moo ma doon fayal tamit parce que en tout cas couture daal la gënoon a visé daal. léegi jàng bi lan moo taxoon mu taxaw. waa jàng bi nag dara woon mu taxaw xanaa màgg rek bëgg affaire de mode daal défilé yeeg coupe yeeg. yooyu ak tamit Juma Jang Jaxate dafa nekkoon koo xamante ne dafa nekk sama référence dama ko bëggoon ci lépp daal loolu daal moo yàq sama jàng daal. am nga ku fidèle <laughs> sa référence ku fidèle la ci couture macha allah léegi jàng bi CM2 la après nga dugg centre formation couture ba xam ci euh, diggante bi ngay jàngee la la dab wala après que nga bàyyi jàng nga concentré wu ci couture. non non parce que couture bi moo tax ma arrêté sama njàng. wax naa la ko léegi ci wax nee naa la bi ma bëggee euh, bàyyi sama yaay moo ne ma doo bàyyi mais sama papa moo ma jàppale ci couture bi moo tax ma arrêté sama. d' accord d' bi la ci paa bi poussé dawal la ci sa motivation nan la ko maman dundee sa yaay bañ sa papa nangul la diggante. non au début nag euh, ci benn côté dafa foogoon ne jàng moom xam nga surtout jàng jigéen. parce que man li ma ko doon nee naa ko yaay jàng jigéen dégg naa yàggul da ngay am jëkkër après nga am doom sa njàng bi arrêté te bu fekkee da yor euh, kii comment dirais da ngaa yor métier mën na la jàppale ci fin beeg yooyu ci loolu daal laa ndaxtaan ak sama yaay ba am li ma bëgg mais amuñu problème boobu parce que après daf ma jàppale encouragé diggante ñaata temps nga ko xëccante ak moom genre. jàng maa ngi commencé 2009 laa commencé def sama première année deuxième année troisième année. après ci lañ toog suy fii ci laa continuer tamit ci benn centre ci lañ ma jëlee en même ay jàng jàngale ba nii maa ngi centre bi. Dakar yaa ngi fa def ñaata année ci centre boobu. Euh, trois ans. trois ans laa fa def. trois ans ci nga mënee métier bi. ci la mën métier bi am na ndax bu dee Dakar euh, traditionnel yi daanaka ñoom frataaluñ ko waaw ay chemise veste affaire yooyu lañ gën a frataal mais nag traditionnel bi noom fii laa ko gën a fii laa ko gën a kiiwee daal maîtriser mooy centre euh, sëñ Abdou bi nekk ndaamaatu wax dëgg yàlla gannaaw yàlla ñoom la daal. foofu def nga fa ñaata at. foofu def naa fa tamit euh, trois ans. def naa fa trois ans. léegi euh, soxna Fatou bi nga génnee ci centre bi ubbi dem nga ci place de liggéey ñu lay fay wala subitement bi nga ci génnee rek nga ubbi centre bi nga. non yàlla dafa def nag xamali naa nit ki boo bëggee dara def ci sa lépp yàlla lay ubbil bunt ci loolu. parce que man dama daan jàng ba pare en même temps di joxe cours dama daan jàng en même temps di joxe cours parce que am na idée yoo xamante ni man maa ko joxoon waa centre ba lu mel ni exposition lu mel ni yeneen programme yoo xam man maa ko doon proposé sama comment dirais sama sama directeur parce que danaa moom day faat dangaa sob lu ne yow yaa koy naan dañ koy def ma ko non non directeur nañ def nangam rek lii buñ ko defee lii buñ ko defee dina réussir mais bi ñu defee porte ouverte bi ma jël sama idée ak sama lépp def ko ci porte ouverte bi ñu pré euh, ñu invité ay centre centre ñu ñëw ñoom tépp ñoom ñëpp ñu ñu ñu kontaan ci daal te su ma juumu man mën naa waan ne tubaab ba mu daj porte ouverte man maa ko fi njëkk a def bi centre yooyu ñëwee naa à la fin ñu gis affaire bi ni mu réussir d' abord kenn ku ne mu ngi def porte ouverte waaw. damay dégg sànq sa biir wax nga wax mannequinat en même temps aussi yaa ngi proposé exposition da nga si jaaroon waaw mannequinat bi dama ci jaaroon parce que centre bi ma nekkoon dafa amoon benn mannequinat bu doon ñëw boo xam ne dañu daan jàngal parce que dañu daan def chaque fin d'année fin d'année bu ñu masaan ne ñun ay miss yoo xamante ne ci biir élèves yi ci lañ koy jëlee yàlla def nag ma bokk ci ñun formé ma ci doon jël tamit ay trophée léegi bi ñëwee fii ma ne pourquoi pas ndax ñun dañuy def fin bu ñu def fin dañuy jël ay ay mannequin ci àll ba pourquoi pas élèves ñun duñ leen jàngal léegi bu jàngalee élèves la ñuy jëlee mannequin ci àll ba ñu def ko suñuy élèves ñoom bu ñu en même temps dinañ mën a ñaw dinañ am expérience tamit mannequinat loolu ma dugal ci mannequin. macha allah yaa ngi si ba tey wala. waa maa ngi ci ba léegi nag. <laughs> soxna Fatou bu ñëwee ci loolu c'est bien beau nga force yam seen deux après nga am sa choix nga ni tailleur nga bëgg a def nga def sa formation ba tey ji nga taxawal lii mais wax ji nii neex na mais en tant que femme yan difficulté nga xamante ni jànkoontoon nga ci. lu tar. ndax la su ma doon wax sa fi la ñuy fanaan parce que en tant que femme maa yor sama ménage kër. ah parce que elle est mariée. elle est mariée. avoir deux enfants. ah <laughs> maa yor aw ma jànk pour l'instant man maa fa nekk ak sama famille ak sama borom kër balaa maa ñëw dinaa togg añ def ménage yëpp doog a ñëw. c'est jàngale su ma wàccee togg reer. doo ko defaat ménage en tout cas daal ñaar yëpp laay boole daal <laughs> moo tax Alima du ma la dagg des fois damay euh, sama élèves yi mhm. kenn daf may won naa maman du ma mën a ñëw man la lan moo tax nga ne sama yaay dafa génn man maay togg añ wala fan yi du ma ñëw parce que suñu kër kenn nekku fi mën na la ci instant bi nga war a mën a profitoo di boole ménage bi ak jàng bi parce que boo demee ba ci biir tey maîtriser woo ko boo demee ba am sa liggéey neen rek moo mën a nekk soit da bàyyi liggéey bi concentré wu ci kër gi soit nga bàyyi kër gi concentré wu ci liggéey bi te jigéen nag moom wota jël rek liggéey bi parce que femme lañu wax femme ménage da nga war a nekk sa kër nekk fi ñuy liggéey en même temps. jigéen femme de ménage. Ah, jigéen ci kër. jigéen ci kër. kon yow nangu nga loolu. d' accord naa la parce que maa ngi koy def. yaa ngi koy def maa ngi koy def. kon mën nañ ni Ndeye Fatou mi ngi matal kër gi ba pare it mi ngi dóor waar loolu nan la ko Ndeye Fatou dundee est ce que du jàppanal borom këram. waaw kooku moom dama koy sant. parce que li ne feccub liir bu neexee nday jaay jàpp si mbagg yi ma koy nuyu en passage Pape Bekaay sama borom kër sama amuura <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax lépp moom la moo ma yombal ci lépp nag parce que même sama ménage kër sax dafa may jàppale loolu moom chapeau moom ci côté boobu noonu. waaw <laughs> sa ménage bi que suñu naa ma lii bàyyi ma defaral la lii dama def lee naa la defaral lii kon koo xam nga ne jàppale na ma ci benn côté et puis yërëm na ma ci benn côté waaw kooku maa ngi koy maa ngi koy féliciter. mais tamit euh, xëy na ci ci ci ci baaxam la mais gisul gisul femme brave bi nekk ci yow depuis le bas âge tamit gunge la rek la si mën ci la la fekk noo waa ci la ma fekk nag. ci la la fekk ban diggante la la si fekk. waaw bi may fekk boobu euh, sama yaay mi ngi yor resto. Dakar. Dakar ci lañ xamante boobu maa ngi jàng aussi tamit jamono yooyu maa ngi jàng. boobu yaa ngi ci centre euh, sëñ Abdou Karim bi. non non centre sëñ Abdou Karim maa ngi fi dugg 2013 ñun 2011 lañ toog si Touba fekk na ma génn. d'accord d'accord léegi nan ngeen ko dundee yéen ñaar comment ça s'est si c'est pas un peu discret. <laughs> Alima Alima lu ma mën a wax daal. góor. fekk jigéen ci liggéey muy daan dooleem gëm boppam mu gunge ko si ba tey ba tey ngeen ni am ngeen ay bant te ba tey yéen a ngi si ànd macha allah di ñaan yàlla mu gën a sax c'est pas facile maman jigéen jigéen may wax ak yow ñun dañuy dund loolu dañ lay fekk ci dara après euh, seule solution bi ngay am c'est pas que dañ lay tere mais tellement charge yi ci kër gi dina bari wala njaboot gi parce que jigéen may protéger këram day bari ba yu bari doo ko tal si biti c'est pas léegi loolu lépp ça veut que ni ca càppaandaw ga ngeen ko déggoowee Sadou moom tamit ça va explique. Euh, Aliou mën a expliquer mooy man li may def nii maanaam dañ ma cee tette man sama yaay laa gis muy def noonu sama yaay danaa boole liggéeyam ak ménage am xamuñu sama papa ñu jox lii sama yaay ñu jox lii xamuñu loolu kon nit ki boo gisee loolu dañ la cee yar man tamit du ma def yaa fuus du ma ne lépp papa rek man damay bëgg surtout nag ak jigéen ñi. damay bëgg ñu jàppale gis na kër papa mooy sama chéri <laughs> Alima bàyyi tooñ <laughs> man damay bañ jigéen buy afus jigéen da nga war a liggéey parce que kër kenn mënu ko yor ñaara ko mën a yor parce que joxe dépense rek charge la jëlee naa besoin ñun rek dañoo bëri besoin ñun jigéen moom seeni besoin nit mënu koo yor ton boo bëggee ménage bi neex il faut ngay jàppale sa borom kër moom tamit il faut que mu lay yërëm comprendre nga su boobaa bu dee ba gisul na xam ne yow mii la nga ko naan defal amul parce que nag peut-être am na ñoo xamante ne xëy na ñun ñi bokkuñu mais man damaa paar dama contre jigéen bu naan sama jëkkër moo yor charge bi yëpp jigéen da ngay jàppale sa borom kër ngay def mu def bu teyee mu joxe dépense su biyee nga joxe dépense su biyee nga ne ko àllaaji garaawu teel comprendre nga wala def naa nangam ak nangam en tout cas loolu daal day gën a neexal diggante bi day gën a neexal day gën a rataxal diggante bi daal te loolu métier donc moo ko mën jigéen boo amul métier doo mën a dimbale sa bopp bay dimbale sa borom kër te kaay ma la aliment instant yi ñu toll nii jigéen bu amul métier perte nga jigéen bu amul métier perte nga parce que nag waa sa gis nga mariage fan yi ngeen di génn la ak jamono yi yim lay takk gis nga bu ngeen amee benn doom ñaari doom problème yi ñëw yenn jikko yi feeñ comprendre nga loolu ñëpp la nag même loo ko bëgg bëgg bëgg mënut a neex daal mënul neex léegi bu fekkee ne yow mi am nga ci loo jàpp comprendre nga ci yenn côté yi amaana yenn usuwaare mën naa bañ a mën na ñàkk moom bu mu amee mu def yow boo amee tamit nga def comprendre man daal loolu laa gis daal de allah defar sa xalaat rafet na foofu sell na aussi macha allah yal na yàlla jàppalee diggante bi gën a sax vaccine saari sama sang bi maman ñu ñëw ci centre de formation Lamp Fall Couture idée bi fan la la jëlee ak lu tax tur waaw ah, yaa ngi doog a ñëw ci question bu ma neex <laughs> Alima man dama judd rek bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Mouridina bëgg naa ko te xaw ma ne sax yàlla xam na ci famille bi laa bokk. billaay wallaahi ki jur sama yaay muy sama maam surtout maam Cheikh Ibrahima Fall la. man yéex naa ko xam après sama maam bi nekk fii nii moo ma doog a yooyu yëpp kon bi ma ubbee centre. ma naan Lamp Fall laa ko woo tuddee wala maam Cheikh Ibrahima Fall mais yooyu doo laa laa jël moom soit Lamp Fall soit Cheikh Ibra soit Kër baay Fall ma ne ah xam naa Lamp Fall moo gën a gàtt daal naa jël Lamp Fall couture mais maam Cheikh moom dama ko bëgg sama lépp waaw tur bi daal moom yàgg na nekk sama rêve daal. tur gi sa cofeel ci Cheikh moo ko indi d'accord léegi bi ngay taxawal Lamp Fall couture. ça t'a pris de temps genre projet bi ba mu taxaw mën naa ne sama rêve la man de façon chaque jour Dieka Fay depuis ba ma nekkee ba ma ba ma commencé di jàng laa ne man il fallait que ma ubbi centre parce que man dama bëgg aar man mënu ma ubbi atelier parce que atelier man dafa am frontière. dafa am yoo xamante ne doo ko mën def. ndax boo ubbee atelier ñaw nga man nit ki ñëw jox la tuseem na la ñawal ko nga ñawal ko. Mhm. mais bu fekkee centre la danga nga mën def aar muy lan da nga mën di créer ay saak sama centre dama fi jàngale saak dama fi jàngale ay dàll dama leen di jàngal euh, crochet dama leen di jàngal teinture cuub sax dama leen koy jàngal lépp luy aar rek ba ci dessiné dama leen koy jàngal parce que man jëmi aar ci boppam moo ma neex waaw moo tax moo tax ma ne centre daal laa ma def li ma li may li may bëgg yëpp ma koy jox sama élèves. ça t'a pris combien de temps pour nga taxawal ko projet bi. projet bi mën naa ne nag yàgg na yàggut parce que ndimbalu yàlla la daal fi ma koy bëggee dem naa ci benn aspoku sax bëggoon naa ko luwe samay ami d'enfance mooy ñi ma doon jàng naa moment yow da ngaa dof xanaa xanaa fii cinq élèves bu ñu fi duggee classe bi te classe bi fees man leen noonu cinq élèves yooyu day jar sa après ñu jël banc yi ñu dugal ko ci couloir yi ndax booba bëgg naa daal ubbi centre ñu ne ma noonoo yow da nga yàkkamte yow leen nekk sa rek comme ça boo de boo amee atelier ba ci kanam ñu wut place en attendant man leen man ubbi ma atelier ma centre laay def même bu dee pour ko samay centre laay def yàlla moo def ba benn jour bi may ubbi centre bi amaguma fii bi ma naan damay ubbi centre Lamp Fall boobu amaguma fii ma nekk nii. kon bii moo njëkk ci centre Lamp Fall bii moo njëkk ci centre Lamp Couture benn jour laa dugg oto may woote am ku ma doon waxal téléphone ne ko ubbi naa centre gare bu ndaw boo placé ci suuf la nga xamante ne ay pukus la. Euh, léegi durant bi ak di joxe inscription yi daal ki ma yóbbaale daf ma yóbbaale par hasard rek de fekk dama tardé woon mu yóbbaale par hasard ma coupé mu ne ma soxna si foo ubbi atelier bi ma explique ko ne ko fii gaar bu ndaw sëñ Sidi Muxtaar bi mun ne ma pourtant foofu de am naa fa place te pourtant damay bëgg a génn sax est que boo demee doo yëg ci kaw nga xool nii nii nii rek ma ñëw ànd ak siini mooy ki leen di jàngal yére góor bi ma ne ko man de am na ku ma dajeel tey mun na ma naa yëg ci kaw am na place bu fa nekk bi ma ubbee saal bi dama jooy. Cheikh Ibrahima jàppandal maam Lampa jàppandal waayam nga macha allah. c'est une loolu yombul fierté la dafa neex lool. xam nga li ma jaaxal mooy kii dama ko arrêté. xaw ma ko xamuma te boobu place ndaw na ndaw boo xamante ni loolu bokkoon na ci li ma gënoon a jaaxal su élèves yi bare après nan laay def nii rek ci une semaine moo tax alhamdulilah daal sant yàlla lépp nag maam Cheikh rek. ci laa jàppanteek moom jour boobu laa jàppanteek moom doomam sax d'ailleurs mi ngi fi moo tax kooku man aw ma fayam mais nag dama xam ne maam Cheikh ñu boole. parce que dem ne nit bu la yàlla di dimbale lay booleeg nit ci loolu ma bi élèves yi ñëwee ma ne danaa def porte ouverte comme porte ouverte ma defoon fee nii nii mu taxaa ñëw fi muy seen kii bi Gabon production maa ngi koy ziar kooku amu fayam ma expliqué ko yu bari moom ma ko jox idée bi moo ne ma defal exposition bi su ko defee après dinaa wax sama sama kii bi euh, sama xale yi waa site bi ñu ñëw fi sama premier élève non quatrième cinquième xaw ma sama premier élève bu matinal pib bi mu def ci YouTube bi moom woo téléphone ne ma dama gis porte ouverte bi Sénégal kii dak euh, Touba te man li xawee ma ko Touba ay porte ouverte yi pour man Dakar sax la nekkoon après ci laa gis affiche bi ci noonu alhamdulilah daal gawoon nag moom bàyyi naa ko yàlla xam nga ko ñooñu ñëpp yàllaa ma booleek ñoom daal te fayuma leen dërëm ak ñeneen ak ñeneen di nuyu tamit Assane mi tamit Assane maa ngi koy ziar bu baax a baax moom tamit jàpp ci ci sama dernière fête ci lañ xamante ma ak moom yu bari tamit moo ne ma defal nii defal naa xam nga ba fête bi tamit réussir alhamdulilah en tout cas fête bu ma def ak waa Gama production ndam laa ci gis après. ndam nga si réussite. kon suñu mission bi yàlla na yokk ndam li incha allah may <laughs> faatoo tur naa fi xéwal yi damaa ngi tuub de ñu ngi tuub bu baax <laughs> ñu ñëw ci ginnaaw nga taxawal centre bi doxalin bi yan war ma nga fi teg ci élèves yi. waa war ma bu may njëkk war ma bu may njëkk mooy dañ ne euh, tur day wuy boroom te lu fees ci xol. war na fës si jëmm comme que nee na centre formation Lampar Couture la lépp luy dëkk bi di tere ñun waruñu ko mën a def waaw lépp lu dëkk bi di tere waruñu koo def te képp ku ñëw euh, Lampar Couture te nee na Lampar jëmmi maam Cheikh wala daray daray maam Cheikh war na fee mën a fës daal man daal ci loolu laa nekk. te ci loolu laay ci loolu laay continuer loolu tamit laay diggal si samay élèves tamit mhm. loolu buñ ko boo ko tënkee noonu mën nga ci mën nga ñu ci indil benn leeral ci façon doxalin waa règlement intérieur centre bi nag moom fii man sama règlement mooy lan élève bu xasee ba génn këram ne day jàngi man maa ko yor ba ni muy wàccee ba ni muy wàccee élève bu ñëwee inscrit damay jël numéro téléphone am jël numéro téléphone yaayam jël numéro téléphone papaam en même temps jël numéro téléphone ki nga xamante ni moom la nekkal parce que mën na ma jox ñaaree fekk nekkut ak ñoom te Alima dinaa la wax leen bëri na samay élèves yoo xamante ni centre bee tax ñu ñëw loger Touba surtout matinal bi na ñoo xam ne dëkkuñu Touba mais centre bi biñ gisee pub bi lañ ñëw loger seeni doom fii pour ñuy mën di jàng vendredi bi nga xamante ni wala bu ñu amee feet la ñuy dem seen parent yi bëri na surtout waa matinal xaaj yëpp dëkkuñu Touba kon xam nga loolu sant yàlla la bu wér a wér a mhm. léegi nag élève yi muy leen damay wax sama élève bu jàngi suwul mu feebar wala soit lu ko mën a dal mu woo ma téléphone jox ma rendre ma compte ne ma maman kat mënu ma jàngi si mais nangam ak nangam moo ma téye mais sama élève bu absent we du ma ko woo moom personnel parce que xale jigéen ñi mooy loolu yaa ma gën a xam dañoo bëri ay dugg-dugg ay génn-génn te dañoo yeewu merci dañoo yeewu am na ñoo xam ne ci kër ci kër yor saag damay jàngi merci moo leen fi indi mi ngi noonu moo leen fi indi affaire yooyu noonu moo tax ku ñëwul rek damay wax sa parent diw lan moo ko tee ñëw du ko tee jàngi si ba jàmm la léegi bu ko defee nga wax ma ne lii moo ko jaar mais su boobaa yow parent bi di nga xam ne man def naa sama devoir parce que woo naa la téléphone mais de toute façon su ma wootee tamit élève naa ko sanction parce que moom moo war a njëkk a woo ne ma maman tey du ma jàng si mais nangam ak nangam waa loolu moom moo nekk na bokk na sama sama sama euh, kiiwu intérieur. am na yeneen enseignant yoo xam ne ñu ngi fi wala. waa am na yeneen enseignant ku mel ni Sini seen moom tamit di rakk ju baax ci man depuis durant biñ dooree ba léegi man ak moom la. ba muy metti man moom la ba muy nakari man moom la ak ñeneen ñu fi jot a jaar tamit maa ngi leen di félicité ndax kenn ku ne yaa ngeeg tamit sa sa say say fi bopp ak Fallou moom tamit moom la bokkal euh, atelier ndax moom dafa yor atelier en même temps fii maa ngi moom tamit ñoo bokk ñu jàngal ñoo bokk ñu ñoo bokk fi ñu nekkoon waaw ba instant bi man ak moom ñoo fi nekk mais seen ay Fatou ci jàngale ñëw bi rek la yem ku ñëw ci centre bi am kii mën nga ko ñawal ah. dina jël ay clients waaw nday du cadre euh, day jàngale rek ak tailleur la en même temps waaw day jël ay ñaw di ñaw en même temps tamit day jàngale d'accord d'accord en même temps day jàngale c'est très intéressant projet la teg après Lamp Fall Couture Lamp Fall diw Lamp Fall Lamp Fall cosmétique Lamp Fall <laughs> nan nan nan la Ndeye Fatou tegaat yi nekk ci kanam waaw mais lépp ci domaine bi couture couture la muy lan mannequinat bi bëgg naa mu doon loo xamante ne lu lu am solo la Touba même buñ ko defut fii tamit ñu xool feneen fuñ koy defee parce que tamit ki ñaw ku ko wane la bëgg waaw te tailleur yi nekk Touba fi ne mën nañ ne en général te Sénégal ba mu daj tailleur yi dëkk Touba ñoo gën a mën a ñaw fii te tey bu ñuy def programme dañuy dem dakaar di fa wuti ay mannequin te mannequin yaa ngi fi xale yu ndaw yu rafet yu njool am taille fil mannequinat moo tax dama koy def su ma sama rêve daal bokk na ci loo xamante ne dina siiw ñu xam ne d'ailleurs sax am na tur ndax ñu ngi ko tuddee Baol Monekina Baol Monekina lañ ko tuddee waaw bëgg nañ di génn ak xale yi su ko defee ñu xam ne xale yi Touba du cadre ne maanaam mooy loolu daal mu affaire de mode daal moom mën na mën na sore en même temps di ñëw ay prêt à bu dul loolu tamit am na petit mystère tamit ñaan nañ yàlla mu doon gan ni mystère <laughs> macha incha allah da koy nekk Ndeye Fatou kontaan nañ trop ci dalal bi. Euh, man maa ngi lay fay maa la gën a kontaan. en tant que femme ban message ngay jàllale. en tant que femme li may message bi may jàllale Alima mooy jigéen ñi nañu wuti métier centre formation Lamfar Couture xam lu muy xeex tëdd nelaw amatul nañ bàyyi lekk tëdd nelaw nañ bàyyi lu yomb nit du bëgg lu yomb ku bëgg lu yomb yàggam yàggam di nga jooy te ku chaque jour kuy tàllal dinañ la jéppi dafa neex nga am sa problème nga faj ko sa doom wala sa sa borom kër sax pourquoi pas mën na am problème nga mën a la soxna si lebal ma ci xaalis bi nga yor nga ne ko chéri may naa la ko ku xolam day gën a sedd da day gën a nopp sax nag ah te loolu sa liggéey moo la ko mën a may euh, message bi may lancé samay élève laa koy lancé chaque jour dama leen di wax d'accord naa mën ngeen am jëkkër moment bi mais bu ma sañoon ku ci wax ni dégg naa ay xay dina la bàyyi nga eggale bàyyi leen heure ménage bi ngeen di gis statut xam nga def mariage photo wu fi ne mooy rey dëkk bi fi ne xale jigéen ni loolu rek lañ bëgg. moo leen influencé waaw mhm. léegi un an du matul sax un an mariage bari matul un an matatul un an parce que góor ñi la yàlla xam doy na du ñëpp ah, <laughs> ak sama bosa yam xam nga am ñoo gaa waaw daal lañ mën mais mënuñu yor jabar te ñi mën yor jabar bariwul góor ñi mën yor jabar bariwul am na ñoo xam ne bëgg nañ ko mais doole bi moo leen ko mayul yow bu fekkee amoo métier yow yaay sonn ku jigéen ki yow yaay sonn jëkkër euh, góor mën na ne aw ma mais jigéen ñi mu wut a wax loolu parce que yow man nga ne aw ma dépense mais mën nga ne aw ma dépense mais yow say doom foo mën a kërte kërte boo demee marché bi da nga fay gis jigéen ñi dañoo bëri parce que tamit aw ma tamit doo ko rey doo ko fees du ko dem sàcc ji yow yaay dem lijjanti léegi bu yàlla defee nga am sa métier léegi nag xale jigéen li ma leen di conseillé moment bi ñu toll nii boo leen di wax dañuy foog ne sa intérêt moo tax ngay wax mais ci moment bii lañ war a profité te màgg jigéen dañ na du dara tey ku ci am 15 ans 10 ans fekk na nga am nga am jëkkër bu yàgg ñu judd 2020 instant yi ñu ngi nii ay ñeent doom la ñuy am juróom doom précoce ba pare xale dañoo précoce mi ngi noonu kon nañu nañu nañu nañu yàkkam nañu kii seen avenir maanaam ci moment bi lañ ko mën a amee moment bi nga xam ne ay célibataire lañ lañ mën a amee forcé la ñuy def ku ñëw naa ne la nob nob naa la ya tamit nga nob ko nee ko nag leen rek laa bëgg bàyyi ma ma continuer te nag kaay ma wax la góor ñi danaan la waa nañ la bàyyi nga jàng mais buñ la takkee ah dam naa ciy kaa yoo xam ne dañ lay takk ba pare. te problème bi mooy euh, Ndeye Fatou bu ñuy takk dañ naan duñ takk cas social aussi le pire. moo ma jaaxal bu sax soon ba pare góor ñi léegi dañoo yeewu. moo tax tamit mën nga leen lancer message que yow nan nga def ba imposer. baaxu papa ci la mais aussi yow ya yaa prouvé yow yaa imposé que lii nga bëgg te ci ngay des. waaw parce que Alima nit boo yàggee gis ay couple ay ay ay couple ak tamit réalité li nga xamante ne moom moo nekk échec yi gis na boo yoru sa yëfi bopp rek perte nga. te nag ma wax la gis na góor ñi boo amul sa liggéey du la respecté de suñu xamee ne ci ñoom nga ni dana nit doo ma yaakaar pare yem ma am na fenn xam ne yow mi ci man nga yaakaar pare yem ma dañ lay diri buum. naa la lii ngay def boo ko mënoo nga takk say bagaas nga dem suñ xamee ne yow mi suñ la gisee boo boo leen joxee ñu def boo leen joxul ñu def suñ la gisee ñu dem buñ la gisul ñu dem danañ la respecté am la teg mais góor gu xam ne ci moom nga wéeru bakkan la lay teg toog wala la neex loolu nga koy gérer man mën a muñ muñ bu moto moom mënoo muñ nga takk say bagage nga dem kon nag yor loo xam ne moom nga téye kenn du la yab nga yor sa yi bopp am looy suturaloo man daa pour man moom moo gën te jigéen ñi xale ji xale jigéen yi du moins bi ci âge bi lañ ko mën a lañ ko mën a trouver. kon en tant que femme Ndeye Fatou li muy wax mooy nañ takk ndigg te liggéey. nañ dem takk ndigg te liggéey te métier boo ko takk maanaam jaay jaay loo am man nga jaay mais alima métier foo dem yóbbu ko fa. foo dem yóbbu ko fa mën naa ñaw. yàlla def na am naa jëkkëru moodu moodu pourquoi pas su ma demee mun ma ubbi foofu atelier su ma jaayee fii sama jaay dox na est-ce que bu ma demee sérieux sama jaay dina dox foofu. maman ta mën nañ laa bàyyi mën nga joxe kàddu yu mujj yi <laughs> waaw comme li mu waxee rek maa ngi lay remercier yow Alima di remercier ak gars yi mu àndal tamit euh, Gabon production moom chapeau damay moo xam li mu bëgg daal yàlla doon ay télé télé. waaw nekk télé boo xamante ne ñëpp koy ñëpp a koy suivre waaw loolu moom maa koy soxla te dina ko am sa na xol bee rafet. te nit bu sa xol rafetee rek jàmm rek ngay am di remercier sama élèves yi nga xam tamit tamit dañ maa bëgg dañ ma bëgg man xam naa sama élèves dañ ma bëgg dañ ma bëgg ba damay yàkkam bi sax jàngale si te ñoom tamit même chose noonu waaw ñoom tamit aw ma seen fay yàlla moom def na ne am na élèves yu ma bëgg yu ma déggal respecté ma te balaa nga ko doon xam peut-être am na ay jamono yoo xam ne samay élèves ñoo mag fuuf te yàlla xam na ne bu ñuy wax ak man dañuy sëgg te mën nañ ma jur kon loolu xam nga cofeel la su ma amee programme tamit damay gis ni ñuy defee ak ak ni may waxee ak ñoom maanaam ni ñuy dundee ak ma damay xam ne ñii am nañ ci man cofeel daal waaw maa leen di remercier ñoom ñëpp muy waa matinal beeg waa soir bi waaw mi ngi noonu ñu daal Lamfal Couture moom non stress waaw non stress macha allah tamit siini sama sama sama collègue bi di remercier sama yaay sama papa sama borom kër ak samay doom waa famille. macha <laughs> allah soxna Ndeye Fatou kontaan nañ trop léegi ku bëggoon jokkoo ak waa Lamp fan lay jaar numéro bi. waaw ku bëgg a jokkoo ak waa Lamp euh, da ngay woote ci euh, orange bi 78 155 46 99 wala ci Tigo bi 026 06 77 waaw. émission fësal la woon ñëwoon fii tey Garba Ndao seet si femme boobu brave boo xam ne dégg nañ ay kàddoom li muy prouver ci këram li muy prouver ci terrain am ak tamit li nga xamante ni mi ngi koy jàllale à travers mbokk jigéenam xale yu ndaw di leen ci tàggat ci métier ba fu ñu dem yóbbaale ko fa à chaque fois nii lay demee dañuy ñëw ci ay surprise di génnee ay ndaw yoo xamante ni ñi ngi fii ci dëkk bi di prouver di taxawal seen petite entreprise di leen ñaanal mu yokk di yokk di yokk ba international incha allah émission Fësël ñi ngi leen ci woo yéen ñëpp ba beneen incha allah jërë ngeen jëf